Poutine lan nga xalaat ci seen discours ñu naan nañu bàyyi ñëpp ñu bokk bu ñu retenir kenn. man li may wax mooy ku war a bokk na bokk. ku warul bokk bu mu bokk. te ki ci ki warul bokk kii ci gën a fës mooy président Macky <laughs> moom warul bokk moom day orga te loolu euh, image yu Sénégal daf cee nar a rafetaat rafetaat bu doy waar. Ousmane Sonko bi nga xam ne dañ ko condamné mu inéligible nag bu bu war bu bu inéligible warul bokk. mais loolu loolu du man maay. abilité pour wax ku war dama ne ku warul bokk du bokk ñi war a bokk bu ñu déposé après dinañ wax kan moo war a bokk ku warta bokk. et ci euh, constitution bi dañ koy teg. ak les institutions constitutionnelles notamment le conseil constitutionnel.